taxawaay bi ñu amagun dal na xelam déet waaye nag laataa loolee sa gis-gis ndax ñu ngi koy wax léegi nekk na loo xam ni du gulit mu fi am ay accident di am bu baree bare fii ci réewum Sénégal ci tënk rek euh, xibaar bi nga xam ne jot nañ ko naka lañ mën a def fii ci réewum senegal ba accident yi mën a wàññeeku. bon nguur bi fi jógee defoon na ay barrière sama anecdote bi mu si gën man sama bopp dal na ma jóg naa fi di dem euh, si frontière euh, Guinée euh, ak Guinée ñëw ba si APS bi fii benn gendarme téye ñu nee na oto du jàll foof la foofu la ñu fanaan jour boobu pour pour mesure yooyu donc man xam naa dund naa ko donc c'est vrai que am na ay mesures yu bëri ba léegi accident yi accident yi nag vétusté yu oto yi si la bokk loolu analyse yu biram oto yi dañoo màgget daal. bon euh, chauffeur yi tamit euh, euh, réglementaire ñu transport en commun bus gis nga si réew tubaab yu développé yi dafa am ay heures yooyu daw. heure yi boo ko dawee ba fii da nga war a taxaw. Mhm. léeg-léeg sa boo defee quatre heures de temps dootoo continuer si yoon bi comme boo waree jógee Dakar dem Ziguinchor. Mhm. mu war a nekk douze heures de route boo ñëwee ba si digg bi. dangay bàyyi foofu oto bi keneen moo koy jël eggali ko Ziguinchor. Mhm. transport organisé yi noonu la ñu war a def. Mhm. bon vraiment ñu ngi jaale mbokk ñu kii nii encore une énième fois kii sànq mu ngi doon wax accident bi amoon na. mu six kilo mu eh, émouvoir ñu ñun ñëpp euh, chaque fois ñu am kiiwu accident yooyu mais il faudrait que vraiment euh, mu am également une éducation populaire par rapport ak euh, le transport parce que à part immigration irrégulière bi transport bi mooy ëppal li muy jël ay bakkan même yenn feebar yi transport ak immigration irrégulière moo ëpp li muy jël ay bakkan immigration irrégulière numéro un après transport puisque chaque jour nga dégg accident ñaar faatu na ñett faatu na mm. chiffre bi c'est alarmant bon léegi nag li mu laajte dafa laajte jàngat bu bëri dafa laajte jàngat bu bëri entre les forces de l'ordre mm-hmm. les syndicats de transporteurs mm-hmm. les transporteurs moom moom les clients sax ba clients les associations de consommateurs clients yi ni ngay yéegee ci oto sa ak sa yelleef mm-hmm. am na nu muy dawee. yow si sa bopp jëlal sa responsabilité nekkoon noonu na wàññi bon euh, yal na leen yàlla xaare àjjana. Mm. état bi jël seen ay responsabilité totalement par rapport ak loolu ñu ngi jëm nag mm-hmm. je pense que euh, tout le temps ñu génnee barrière ay ay ay ay mesures tout le temps ñu kii mm. mm, suñu réew moo toll noonu suñu état d'éducation moo toll noonu suñu état vraiment de de la chose publique de la chose partagée Euh, loo xam ne euh, li ñëpp a bokk ñëpp ñoo ko war a sàmmandoo li ñëpp a bokk bàyyi ko fa nga defar ko moo gën quoi euh, c'est c'est c'est tout le temps nga dégg man su léeg-léeg sama yaram day daw surtout sama yaram day daw si yenn question yi parce que damay damay dem à la limite damay ne bon ñi ñu jiite am nañu pas-pas bëgg nañu mais est mën nañu parce que drame bi bu ñëwee la première question ngay laaj fan la faay bi jóge après faay bi boo situé nga gis ni que am na responsabilité autorité foo xam ne dafa dafa faay loolu nag da xool oto yi nga xam ne yu si bëri mhm. seen visite technique di ñu koy jotee jaarul yoon manque ji boobu ñu ñu waroon jóge pour ñëw fii su amoon système de transport régulier boo xam ne xam nga day lu lu jaar yoon la lu mot ak système yoo xam ne da xool instant boobu ñuy jóge noonu. am na ñoo xam ne amuñu benn alternative alternative bis boobu rek. mooy horaire bi nga xam ne bu génnee tey. balaa ngay amaat beneen suba. nga war a am soxla boo war a mën a jox si dakaar amoo yeneen kii amoo beneen pexe lu dul jël boobu walla topp boobu de de doo nangu mu bàyyi la ginnaaw même bu nekkee dafay def erreur da ngay jël sa bakkan euh, dënkaani ko donc euh, loolu mooy situation. d'accord.